asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen uh, ñaanal jàmm yàlla na jàmm yàgg Sénégal tey nag dama ñëwoon pour waxtaan ak yéen sama diggante ak Ousmane Sonko waxtaan bi nag ci li jot a xew actuellement la la war a doon parce que dañu nekk ci jamono yu leeral kon foog ma leeral Ousmane sonk yow laay waxal yaa ñëw Sweet Beauté tooñ ma fa tooñati ma Ousmane sonk xale bi nga doon jox ay ord di ko dóor di ko violer jeex na la woon woni na te yow xam nga ci dara te démb xam nga ni xam nga ci dara yow Ousmane Sonko yaa ma tooñ tooñaat ma ma yóbbu la ma porte la plainte ba ma lay porte plainte nag su ma xamoon ne dégâts yi am Sénégal dina fi am kon duma la porte plante mais comme yegsi nañ fii tey laa gën a soxla ñu leeral suñu mbir tey laa gën a soxla procès tey laa gën a soxla suñu diggante ma ak yow àdduna yëpp xam yow yaay kan yow Ousmane ko lii yëpp leebaloon nga ma ko biir Sweet Beauté waxoon nga ma ne nag lii yëpp bés bu ma ko waxee nit kenn du ma gëm et que di nga taal réew mi te di ma utiliser ba am li nga bëgg waaye dama bëggoon nga xam ne la woon nee nag comme ni ma la ko waxee sànq la woon xale bi nga doon tàpp di ko def loolu ne pour sa propre plaisir xale boobu nga xamoon ne da nga waxoon ne di nga ko utiliser pour am li nga bëgg dama bëggoon nga xam ne xale boobu màgg na te yow xam nga ko démb nag dégg naa ngay wax ne dama yaru sama yaru ñëpp a ko xam xanaa say partisan ñoo ko xamul te say partisan buñ la buñ la respecté woon yow duñ ma traité du caga kon day wane ne yow caga yi ngay fréquenté Ousmane Sonko deux ans ngi nii may toog di xaar ñaari atumaam yàlla di xaar benn bés boo xamante ne xaw ma woon sax ndax dina ñëw ndax yéen ni ngeen nekkee woon ci dëkk bi chaque jour nga def point de presse sama diggante ak yow chaque jour nga def point de presse taxar ay gor deux ans ñaari atumaam yàlla ma toog ci kaso di la xaar ñaari atumaam yàlla la yoo xamante ne yaa ngi wër di tuumaal ay góor Ousmane Sonko dama bëgg nga xam ne góor yooyu noonu ngay tuumaal yow yaa leen xam man xaw ma leen man yow laa xam ndax yaa doon ñëw Sweet Beauté Ousmane Sonko dama bëggoon te Ousmane sax yow Ousmane Sonko danga ma bett démb yàkkamti woon nga pare ba dem ñi bi defaat sa mënin comme ni nga koy defee point de presse te ba nga jàkkaarloo ak man yaa ngi doon mel ne xaru yar juste bi moo la doon wax waxal ci kaw ba nga li nga tontu sa xaw ma ko li nga wax foofu ba léegi xaw ma ko ndax ndànk nga doon man ndax man démb maa ngi dégg ngay wax ci sa live ni tontu nga question ni nga ko li nga ko waroon tontu. mais Ousmane loolu amul tontoo benn question te démb dama participer ci confrontation entre maître El Hadj Diouf ak Ousmane sonk lan moo tax bëggoo tontu bëggoo wax ci man li ngay def nii da ngay sonal sa bopp rek mais yàgg yàgg nañ daje wiri wiri bi yàgg yàgg nañ daje. procureur tontu procureur wax naa ak yow to nga ne doo ko tontu juge bi wax na. lan nga wax juge bi sax man mii dégguma ko te ma yaa ngi doon mel ni xaru yar maître Dialy Kane wax na ak yow tontu woo ko maître El bi wax na ak yow tontu woo ko léegi nga lan nga bëggoon lan kon lan nga doon ñëwee en lan nga doon ñëwee lan moo la indi pour qu'on def confrontation ak maître El Hadji Diouf nga def point de presse comme ni nga koy defee rek ne maître El Hadji Diouf wuy man au moins man dinaa toog kër ga Ousmane sonk sama diggante ak samay mbokk xajoo ci sama diggante ak sama papa xajooti sama yaay gaañ na demee sama papa mot na instant bi taxaw na taxaw yëpp Ousmane Sonko booy wut baay bu irresponsable mooy yow booy wut jëkkër ju irresponsable mooy yow man samay mbokk mënoo leen xaaj te samay mbokk mu noo maa jaxase ak ñoom sama papa booy wut papa bu responsable moom ngay booy wut pa baay bu bëgg njabootam moom la sama yaay gaañu na de mais juwee ma ko benn yoon ndax moom sama baay nag wowaguñ ko ndax dafa yàqataan doomu jàmbur sama baay nag taalagu fi réew ndax dafa toog def lu ko neex ba pare di naan ñëw leen ñëw leen li yéen ma dañ ma xaw ma lan sama baay aussi baayul njabootam ay xaaju guddi jog di fekkee ay njabootu jàmbur di leen yàqataan sama baay saa gu fi benn kilifa diina sama baay dafa gu benn affaire boo xamante dañ ko xeefe te yàqataana gu fi benn xale bu ndaw Ousmane Sonko nee naa la sama papa gën te say njaboot say histoire dinañ ko jàng say set setaat dinañ ko jàng ndax dinañ ma dinañ xam ne sa seen seen baay wala seen maam moo doon yàqataan xale bu ndaw ba mu mu profité si loolu taal di taal réew mi koy wut bu ku irresponsable bu yegsee si yow mun a taxaw yow irresponsable bi ngay wax ci samay famille ci yow la njëkkee ak say famille su tenee nag pour wax nit ñi j'appelle à un procès public te maa ngi koy ñaan koo xam ne mën nga koo doxee waxee ko procès public laa soxla foo ma nekkoon tey laa fa gën a taxaw la taxoon ma porté la plainte tey laa si gën a taxaw pour mën ak yow nañ jàkk ndax xam naa ne yàgg-yàgg dinañ tase ma ak yow nekkatul kuy toog wax wala kiy toog bañ wax parce que damay bañ ku ma saaga tey laa gën a toog pour ñu dem procès tey laa ko gën a bëgg pour ñu dem procès ma ak yow yàlla na yàlla defal jàmm maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan jàmm yàlla na jàmm yàgg Sénégal dina di ñaan yàlla yàlla may ñu tal ak fekkee ba ñu dem procès ak jàmm dëgg bi feeñ ndax soxla nañ ko ñun ñëpp sénégalais soxla nañ ko man mii soxla naa ko pour reprendre sama life